alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ixwatal iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu noo ngi àndaat ak yéen ci Al Afia TV di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala waxtaan yi yiw yiñ ci am yal nañ ko yàlla boole fi dunia wal axira dañu indi benn tomb boo xam ne laaj yi ñoo ci bëri ñu bëri di ñuy woo di ñu laaj di ñu wax ne dañuy julli waaye du ñu am toroxlu bëri na ku ma ne ma dinaa julli lu bare baree bari waaye toroxlu laa ci dul am maanaam du ma yëg daal julli gi lan lay saf loolu nag dafa bokk ci awaiq alxusu fi salaat loolu mooy gàllankoor pakk-pakk manqué manqué yi nga xam ne tey moo ñu gàllankoor ba bu ñuy julli du ñu yëg toroxlu loolu li koy waral mooy mbir yi su fekkee mbir yi mu ngi ci doomu aadama dina julli ba sonn du yëg toroxlu te xam ngeen ne julli di toroxlu yàllaa ko bëgg qad aflaha al muminuun allazina hum fi salaatihim xaashiun yi borom nee na jullikat yi texe nañ way gëm yàlla yi texe nañ al muminuun qad aflaha al way gëm yàlla yi texe nañ ñu ne yàlla ñan mu ne alladina hum fi salaatihim ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy toroxlu kon jullit suy julli na fexe mu am toroxlu waaye bu fekkente ne yaa ngi julli munoo ci am toroxlu rek yëgal ne ba ci am nga feebar yi feebar yooyu ba ci jiitu mooy du'ful iman bi liqaa illahi taala wa ruju ilayhi am nga feebar boo xamante ne mooy feebalu ngëm feebalu ngëm goo xam ne yow kat gëmoo ne di nga dajeeg yàlla su fekkente ne bi ngay julli yëg nga ne bëccëg a ngi ñëw guddee ngi ñëw wala dinga nga yàlla yàgg-yàgg dinga taxaw ci kanamu yàlla kon booy julli di nga am toroxlu sooy julli nga kàbbar nga yëg ne yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla di nga taxaw ci kanamam ëllëg yowmal qiyaama yàgg-yàgg di nga dellu ci moom kon dinga nga def effort bu rëy rëy rëy rëy pour lan pour torox lu nekk ci sa julli ñaareel bi mooy waswasu shaytaan mooy sikki sàkka shaytaan soo ne allahu akbar shaytaan a ñëw di la jax-jaxal naan la waaw yow mars ba nag waaye yow film bi nag waaye yow kañ ngay dem géej waaye yow kañ ngay tiire ci xaalis bi waaye yow sa rendez bi su ko defee toroxlu day génn ci yow waaye bu fekkente ne yow dëgg dëgg dëgg yaa ngi yëg yàlla tabaraka wa taala yaa ngi am toroxlu génn nga seytaane ci sa xol su boobaa di nga am toroxlu gu rëy rëy rëy ñetteel bi mooy alxafla wal hawa mooy saggan ak bànneex ak fo di taxaw ci kanamu yàlla di julli amoo benn conscience kan nga taxaw ci kanamam amoo benn yëg-yëg danga taxaw di foo dangaa taxaw sa xel nekk ci leneen sa xol nekk ci leneen loolu yooyu ay feebar la yoo xamante ne ku mu dal sooy julli doo yëg toroxlu ba ca tegu mooy al ihtimam azzaid bi dunya mooy kii julli su defee su fekkente ne adduna rek la teg ci kanamam adduna la yittewoo adduna rek rek rek rek moom moom moom mooy ki nga xam ne loolu moo nekk ci xelam su boobaa mbokk jullit yi day nekk mbir moo xamante ne euh, toroxlu du nekk ci moom moo tax dëgg-dëgg bu nuy julli laa budda ñu bàyyi xel yàlla tabaraka wa taala ñu génne àdduna ñu génne àdduna ci suñu xel ñu sori àdduna ñu génne bànneexu àdduna ci sunuy sunuy melokaan ci sunu lépp su boobaa danañu am toroxlu waaye bokk na ba ca tegu mooy tarkul masjid wal jamaa bàyyi jàkk gis nga nit buy julli te du dem jàkk du dem ci mbooloo du mën a toroxlu kon ay seebare ngi nii yoo xam ne tey ñoo ngi koy jàmbat di ko jooy waaye dara warulu ko mu nekk ci ñun lu dul nun la ndax boo bu fekkee da ngaa bëgg julli di toroxlu te doo dem jàkka te doo julli ci mbooloo te julli ci mbooloo ak di dem jàkka day tax nga am toroxlu mais yow bàyyi nga ko kon fooy jëlee toroxlu ba ca tegu mooy duufu mahabbatul ixwa fillah nga am feebar faiblesse feebar boo xamante ne yow bëggoo say mbokk jullit da ngay dajeeg yom ci jàkka ji di leen di leen noonu da ngay ñoom ci jàkka ji doo leen nuyu da ngay ñoom ci jàkka ji di lëndëmal sa kanam da ngay dajeeg ñoom ci jàkka ji mel ne ku dajeeg say noon allahu akbar doo am lu booy julli soo dajeeg say mbokki julli ci jàkk leeralal sa kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na leeral kanam sax ci sarax la bokk nga leeral sa kanam yonent bi nee na nga fexe ba sa mbokki jullit muuñ sax ci sarax la bokk kon ñàkk bëgg say mbokki jullit loolu day tax booy julli doo am toroxlu waaye beneen ba ca tegu mooy adamu rastil sufuuf wa taswiyatiha di julli te du ñu sàppe sàppe bu jub du ñu tegante tënk yi du ñu tegante mbagg yi du ñu tegante yeel yi du ñu tegante tëstan yi te yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa fonkoon sàppe julli ba da wax saaq bi saaq mankab bi alal mankab yonente bi da wax ne sàppe leen comme malaaka yi nu ñuy sàppee saabay yi laaj ko naka la malaaka yi di sàppee mu a yu timmuuna saful awal dañuy matal sàppe premier mbokk yi ndeke ñun li ñuy jooy yëpp ci ñàkk am toroxlu ci julli ndeke sabab yëpp ñun la di julli te sàppe yi du jub sàppe yi day dëng te yàlla du nangu yàlla du xool sàppe bu dëng kon bu ñuy julli bu fekkee dañu bëgg am toroxlu nañuy fexe sàppe bi jub naka la sàppe bi di jube yonent bi nee na tegante leen mbagg yi yeel yi na tegante baaraamu baaraam yi na tegante yeel yi na tegante tëstën yi na tegante ku nekk na nga laal sama moroom bu kenn bàyyi benn espace yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon ne maa ngi seen seytaane mu mel ne mbote mu ñuul moo mu dëkk yaman di jaaj seen diggante bu leen bàyyi bu leen bàyyi espace na ngeen laalante waaye tey da ngay gis ab julit bu ñëw ci jàkk nga koy xëcc pour mu ñëw ci moom mu lay daw wala mu naan ma bu laal soo ko laalee fitna lay jur yow tamit nga sori ko mu sori la ñaar ñu nekk ci jàkk di julli ñu sorante yi laalante wuñu ñooñu naka la seen nañuy amee torox lu ci julli nga gis ñaar ñu daje ci jàkk du ñu bëggante waaye bu ñu dajee seen saalub sëriñ bëggante ah yow da ngay ñëw fii waaw man kay damay ñëw fii ah yow de comme da ngay ñëw fii bëgg naa la ngir yàlla te waa ji ba nga dajeeg moom ci ci néegu yàlla bi bëggante wu leen nga dajeeg moom nga dajeeg moom stade bëgganteeg moom nga dajaleeg moom feneen bëgganteeg moom waaye bi nga dajanteeg moom ci néegu yàlla bëggantewu leen mbokki jullit yi ba ca tegi mooy zulmul ibaad wa adamu itaihim xuquqahum tooñ jaami yàlla yi ñàkk leen jox seen gëdd ñàkk leen jox seen àq day tax booy julli doo toroxlu ku dëkk ci tooñ yàlla yi di leen tooñ guddi ak bëccëg yow na nga yëg ne munoo fexe ba am toroxlu ci julli ki nga xam ne jaami yàlla yi da leen yoreel ay aq seeni aq mu ngi ci yow dajaloo dangay julli ba sonn waaye doo am toroxlu ba ca tegu mooy al iltifaat wa raf il basar ila sama di julli di geestu di wokkatu di xaddamtiku di foqi baaraam di xool ban heure nga yor loolu munoo fexe ba nga am toroxlu ci julli di julli di geestu di yëkkati say bët kaw asamaan fu ne nga xool fa di xaddamtiku di sëqat ak lu ne nga dugg ci loolu munoo fexe ba nga am torox lu ci julli ba ca tegu mooy assalaatu ala shay muzayyana aw muzaxrafa aw fiihi tasawir di julli foo xamante ne dañ koo taaral ba booy julli soo ne allahu akbar doo tala sujjoot wala boo sujjootee sax yu ñu yu ngay gis wala yoo xamante ne dañ koo taaral wala yoo xamante ne ay dessin moo fa nekk moo tax yenn jàkka yi daanaka soo fa jullee sax doo am julli ndax da nga naan allahu akbar di xool dessin yi wala sijaada yi allahu akbar di xool dessin yi wala mbubb yi wala allah allahu akbar xool fi ngay sujjóot foofu dara waru faa nekk loo xamante ne daf lay tourner pour doo am torox lu ci julli moo tax yonent bi di tere ku taaral jàkk yonent bi di tere ku dessiner ci jàkk yonent bi di tere yenn taaral yi ñu def ko ci jàkk ba boo fa duggee sa xel dootul nekk ci yàlla tabaraka wa taala waaye ci taaru jàkka ji lay nekk kon mbokk yii ay mbir la yoo xamante ne dafa bokk ci gàllankoor jullit ba du am torox lu ci julli mu nekk min awaa iqi alxusuu fi salaa pak gàllankoor yoo xamante ne day tax nit du am toroxlu ci julli te tax nit bu amul torox lu ci julli amul dara ndax kat li li tax ñu ne la na nga julli mooy pour nga am toroxlu li salaati nuurun azim tushriqu fi qulubil musallin mu ne lan yanaaluhu illa al musallin julli dafa am leer day fenk ci xolu jullit kenn du ko am lu dul kuy torox lu ci julli yàlla yàlla may nu ko ñu ngi jéggalu kàddu yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu